bokkul ci miraas bi. na ko bàyyam may ca ba muy dund. mais mu xam ko bu ko neexee. mais tey Sophie mais Sophie Sophie ñun ñun. Sophie mais dina am loo xam ne kenn du ko bokk ak kenn. ndax dina dem ba tollu foo xam ne moom jarak di su tëddee ci lal bi. lu mu mayee dootul ñoom. mais nag Sophie. bàyyi xel ni moom itam. déglu li ma la itam lu mu mën a am foo xam ne ci opp ak ci feebal lu mu jaay valable lul. dañ koy jëliwaat. mais lu mu maye. mais Sophie ñoomul. parce que ne àndut ak xelam mais pine bi pine bi. mais Sophie Sophie pine bi nekk pine bi pine bi nekkul rek ci xale bi. Mhm. xale bi ba tey papaam ji ko jur moom itam bu xale bi nekkoon minti milliardaire. Mhm. papa ji amu ci accès. waaw. mais ndey ja moo ci am accès. waaw oh, moom laa la wax. ndey rek. mais papa ji amu ci accès. ndey rek nanu mën a taxaw ne moom moo ko jur. mais bàyyi ba ba léegi. mënoo assuré na moo ko jur. ndax moo tax léegi nag te loolu nag Sénégal fi ci miraas yi waaw. comprendre ma ñëwaat leen ci j'ai pas compris. su fekkente ne ngune si. MD jàppale ma ci direct euh, Facebook bi gars yi ñu ngi koy réclamer dafa dem. ba sunu borom mënee ko gan lool ubbil ko buntu wërsëg ubbil ko buntu baab lu baablu yi ka nga xam ne. moom nanu wax ne moom mooy wéy juróom. Mhm. waaye amee ko ci condition yi nga xam ne moo dëppoo ak condition yi nga xam ne. moom nanu wax. Mhm. suñu demee ba moom ndax léeg-léeg nga gis ku jiitu baayam mm-hmm. Mm-hmm. waaw derub sëlu daan na wëgg naaw ma ñu ëlbati ko alal jooju baayam amu ci accès ñemewul wax ñemewul wax ndey ja moom moom lépp mais ce mirage pourquoi parce que foofa ndey rek moom nanu mën a taxaw waat ci yàlla ne kii moom mooy ndeyam mais mënu noo taxaw waat ci këru àdduna ne kii mooy way juróom mais suufi xam nga damaa dox de suufi ñetti téeméeri teen dëkk du fi naate mais suufi xam nga diine xam nga diine amul amul amul maanaam diine amul amul maslaha mm-hmm. tey li diine xasa bind ne lii mooy texte bi ñun ñëpp dañ cee war a tënku. Mhm. te Sénégal àgg na foo xam ne léeg-léeg dañuy maslaa loo xam ne diine santuñu ko. ah mais nag am na rafetal. rafetal am na mais rafetal am na di diine am na rafetal rafetal amul maslaa rafetal mooy mooy nga jox koo xam ne loolu du paa. am na rafetal mais moom kenn du ko soppi. maanaam non waxuma texte. mais am na ci. li li oustaz wax. maak Sofia fa ci fa mu amee ñu père fi mu amee solo. may naa leen. <laughs> mooy. mooy li mu ko ñaan may li muy waxtaan fekkew ko walaay fekkew ko non non walaay fekkew ko li muy waxtaanee da cee soobu rek mais amu ci benn part de responsabilité billaahi wallaahi wa taala ko am fi te ngi nii barke borom Tuubaa xam nga nekk fekkewu ko laaj leen ko man at la jur dommage nag télé la ñu nekk mais mën nañu wax ba laal sujet yoo xam ne sax day laal ña ca plateau kon fekkee mën nga cee waxtaan soxlawul fekkee non yow waaw xam nga lan moo am solo ah. mooy li ma waxaat rek dafa am thème yoo xam ne soxlawul nit di ko fekkee ou pas. mooy li oustaz wax. yenn saa yi man fii du sama place c'est pas ici ma place. xam nga ça tout le monde le sait. <laughs> mais parce que je ne suis pas à l'aise ici tout le monde le ah, rab yi ñëwaat na. kenn du dara eh, ah, damaa am nag ay rab ay rab yu baax <laughs> yoo xam ne nangu na maa liggéey. néew naa njàmbat defeñ naa ci bëti bugaan ngay dani nangu naa liggéey néew naa njàmbat jafeñ naa ci bëti bugaan a dani. waaw léegi waaw léegi wuyu mën naa la jafe lool ci bëti bugaan nga dund loolu mais xale bi nga xam ne moom mooy ki nga xam ne moom la ñu amul ci buum kooku xale la mën na toll ni Sophie mën na toll ne man mën na am 12 ans mën na am 11 ans xam nga kooku kon mi ngi ci mi nañ ko bàyyi moom moom itamit kon jeex na ah, euh, merci Sophie hmm. c'est-à-dire euh, li li moo am solo mooy li oustaz wax euh, dafa ni uh-huh. njaboot dañuy waxtaan ak moom ah, tuuti ndax ak lu mu mënti demee Euh, bu fekkee ne da nga yaa ngi ree loo xamante ni wallaahi jaru ree ko non non non mais loolooy problème bi c'est-à-dire bu nit di wax ba nga ñaan ko teggin la may ma mu ne la may naa la donc nañ ko nañ ko c'est important li ñuy waxtaanee pour man donc <laughs> baax na non non man man pare naa ci yàgg na li ma bëggoon wax mooy fi nga taxaw dafa am solo oustaz parce que plateau la ñu nekk. Mhm. mën na fekk thème boo xamante ni laal na ku ci nekk ci ñun on est dans une société. Euh, li am solo mooy li nga wax muy waxtaan bi xam nga waxtaan bi fan lay amee solo mooy ca biir kër gi oustaz di nga am sa doom du nekk doomu yoon du ko déranger moom doom ji ndax fëgal nañ ko wax nañ ko ndax du fëtam mais boo ko ko waxul. dana ko dégg ci ci biti mbaa ñu waxee ko ko ci biti conséquence bu njëkk boobu egguñu ci héritage de moo gën a graaw alors que bu fekkee ne toog nga ak sa doom wax nga ko li am bu nammee góorgóorlu dana góor góorlu alalu héritage boobu du ko xaar ndax dana xam ne amu ci cër la nga xam ne mën nañ ko koo may bu ma ne may mooy tànk nit kaa ngi dund tey bu naaw sa papa la mu ne lii par exemple def naa ko ca sa tur yaa ko moom waxuma la ne héritage mu ngi dund bu fekkee say frère ñoo la may boobu papa demagul dara demagul ah, loolu leen di jokkalante seen biir la yaa ngi dund yow it faatoo goo sa papa warulaa laa doon mais xam nga ne lii am na ci cër yaa ko liggéey ba mu toll nee na nga ne ko papa lii def naa ko sa tur balaa may dem donte ne tey bu ma demee dooma doon. Mhm. loolu ñu koy woowee maye. Mhm. ce bien dans la communication. mooy boobu xamal nga sa doom jooju balaa gàcce di ñëw parce que loolu yëpp gàcce la. Mhm. nit ñi war a toog. di séddoo bu séddoo waaw bu séddoo jotee dana xam ne lii du cëram moomu ko du fekkee séddoo boobu mm. mooy bu ñu eggee ci maanaam sédduñu ko bu ñu eggul ci sédd bi tamit xamoon na ko avant loolu laa wax mm-hmm. maye ñëw séddoo nañu alal gi peut-être frère ba ñëw waxuma la da nga doonu de ne ko lii de suñu mag la wala suñu rakk la ñoo ko may d'où la communication mm-hmm. parce que njaboot dañ koy préparer oustaz mm-hmm. waxuma la sax doom bu dul yoon parce que kooku deful dara dafa ñëw mhm. juddu. juddu wallaay. adduna dab ko. Mhm. mais loolu terewul nit war a mën a am jom. terewul nit war a mën a dégg parce que dafa c'est important. mooy ne ci wàllu dund gi ndax bu ñu la ko xamalee feneen moo gën a metti foop sa yaay toog mbaa sa papa toog préparé la ne la circonstance yii lañ la amee diine nag fii la yam ak yow lii la la diine may. donc lan moo tax oustaz ñu war a mën a def barrière de communication surtout ñu nekk société boo xam ne sutura amatul. dëgg la du sa wayjur la koy xamal. sa xaritu wayjur la koy xamal. mbaa sa mbokki jur ñu dem ba loolu mën a jur. ëyib bu rëy ak noonoo bu rëy ci famille wala la dama laaj sa loolu noonu bu fekkee ne nit ñi dem nañu ba toll fa xale bi boo ko préparé yaakaar naa ne mën na koo yokk jom oustaz ba mu am sax lu raw la baay ba amoon ba du mm-hmm. teg alal euh, ba teg bëtam ci alalu baayam dëgg la waaw xam nga Sophie loolu moom mooy sànq yaa ngi may laaj ma ne la tabu lañ ko jàppee mm-hmm. te xamuñu ne ndogal moom mooy am ci àdduna gis nga ndogal bi gën a oyof si mooy bi nga nangu te di ko waxtaanee dafay jàll loolu moom mooy bi gën a oyof gën a yomb ci yow mais du coup que nga jël ko def ko tabu bay am loo ci nëpp nëppal xam nga tey sànq yéen a ngi dugg ci affaire euh, ñaari jabare yooyu am na problème bi problème bi am tey oustaz. bu jàng beeg yooyu noonu pare ngeen ñëw ci nga xam ne dañuy jël xale tuut tuuti xale bu tuuti 6 ans wala 6 ans sax mën na mooy xale bu am 4 mois ñu may la ko. muy noonu moom comprendre pour moom yow yaay papaam yow yaay yaay ngeen bàyyi ko mu màgg seen kër ba toll nu ko neex. kenn waxu ko dara joxe jël. ngeen ne ko juruñu la fi kenn jur la dañ laa dañ laa dañ laa dañ laa maye woon xam nga Safia loolu loolu loolu jur na xale mu fuge day daw dem na ba màgg ñu xamal ko ne ko ñii nga yaakaaroon ne ñooy say wayjur juruñu la mu daal di fàq dem mhm. nekk ci naka sudul noonu c'est parce gi nga loolu ay wayjuram ñoom ñoo ko war tey am na beneen phénomène bu mooy xam nga lan ñi nga xamante ne dañ leen a sànni woon am ay ñi xam ne ay nit yu baax la ñu for leen yor leen seen kër keroog ba ñu màggee ba am lu war am ci kër gi keroog lañ leen xamal leen ne leen ndekete yow juruñu la dañ laa for gis nga àdduna moo tëddee noo xamante ne Safia gis nga ak mbaax ku ko góor mhm. góorgóorlul nga mujjee ko mhm. parce amul limite mbaax amul limite problème bi moom mooy xam nga lan nit ñi nag dañuy sumb loo xamante ne duñ ko yeggali te adduna boo boo ci nekkee mu am ay natt yoo xamante ne suñu borom da koo teg ci kaw yoon la si yow nga góor góorgóorlu ànd ak natt yooyu noonu di ko surmonte ba keroog nga koy dépassé sànq li ma bëggoon ñëw moom mooy oustaz li am tey nekkul sax jeng bi mais bi am mu ëpp doole jàng bi mooy abandon dañuy abandonné ka nga xamante ne fa la ñu amee njaboot mm-hmm. léegi su ko defee éducation xale yooyu échec wala sax nga takk ñett ba ñeent jour yi ngay toog doo aye ca kër këli na leneen am na lu la rëcc ci éducation doom boo defu nag doo fa sax woote xam ci xale yi lu ñuy dundee ak lan la ñuy nekkee mu nekk manque de communication boo xamante ne indi na vide may nga prox ndoolu xale yi foo xamante ne am nañu fu ñu defee naka su dul noonu parce que ku xam cëru góor ci yar muy indi autorité di régulariser xam ne absence waru ko benn yoon ci ay éducation doomam rawatina gis nga jamono bii li nga xamante ne moom moo am Safia mooy soo xoolee ñiy jur doom ñox seen doom yi dañu tolloo. dañu bokk benn génération kon bu ñu amul complicité briser tabou fu ñu jëm. dafay gën a metti parce que il faut que ñuy am ubbil seeni doom doomi am ci ñoom sañ-sañ boo xamante ne xam la man mës naa gis am naa ku ma bokkal classe mu ne ma su may baali sama papa dafay sañ si ànd ak man dem ba si boîte bi ñu ànd baali su ma duggee ñu may reetaan mais gis nga du wayjur bu bon du wayjur buy conditionné doomam ci bon mais jur la boo xamante ne dafay jël ay doomam di leen orienté donte ne gis nga àdduna moo tëddee foo xamante ne am na yoo xamante ne mënoo cee jaas mais orienté ci sa doom doom lay àndal baali mais attends du mbon ah, du mbon déedéet déedéet parce que nekk na loo xamante ne xam na ne ay doomam mënuñu cee mucc. Mhm. mais mu orienté leen si dafa c'est équivalent à ce que nga toog ak sa doom ngeen di seetaan télévision ba mu am ay scènes yoo xamante ne dafa xaw a am ay scènes obscènes yu jàll nga fay télé bi wala nga zappé. wala nga ko tëj kii kii wala sëggal dafay seetaan après lu ko pire. parce que gis nga tey li li ñëw mën way juri mooy internet gis nga via l' internet da ngay seetaan yooyu noonu sans pour autant sax nga dugg si. suuf mbaa yow xale yi léegi xam nga lu def. bloqué nañu seen parents yi si seen statut yi. Mhm. supprimer leen ci seen ami Facebook yi ajouté wuñ leen Instagram te parents yi ñoom ñëpp ñu ngi si biir ah. xale yee leen ci mën fu bu ñu la bëggee contourner dañ lay contourner yow ki nekk foofu noonu lenn rek moo lay sauvé ci moom mooy seen diggante mu bañ a am benn barrière te mu am ci yow sañ-sañ boo xamante ne day ñëw di la wax dara ba loo xamante ne sax yaakaar nga ni ci euh, nu mu ci. Euh, côté bu gën a sensible la mu am ci ouverture ñëw ibbeeku wax ak yow bul ko ngandal bul ko réyal prends les choses avec calme nga orienté ko et puis boo ci jógee jàllal ci loolu nga dem ci leneen moo gën quoi